leen di jaar bu baax continuer leen di abonné ci seen YouTube bi may chaîne bi doole te dañuy ñëw ci Iliman Ndiaye mu nekk Sheffield United moom Iliman Ndiaye mu nekk attaquant mais Iliman Ndiaye mu nekk jeune jour bu mun lu muy def am technique te aussi day dugal moom Iliman Ndiaye kon jot na moom Aliou Cissé dem gëstu ci booy bi Aliou Cissé dem waxtaan ak booy bi mun koo convoqué mu ñëw footballal équipe nationale bu Sénégal ndax xale bi am na talent am na profil bu amul fenn moom Iliman Ndiaye am na vivacité ba pare am na technique moom Iliman Ndiaye kon Aliou Cissé demal nga gëstu ci xale bi demal nga waxtaan ak xale bi nga mun koo convoqué mu ñëw mun a footballal équipe nationale bu Sénégal ndax xale bi am na avenir ci équipe nationale bu Sénégal jeune jour bu bu amul fenn la moom moom Iliman Ndiaye buy vie boo xool da nga gis technique ci moom mais aussi da ngay gis vivacité ci moom. ba pare da ngay gis jom bi ci moom moom Iliman Ndiaye mun na dugg te ba paree am na technique te ba pare day dem ba mu jeex fulla fayda lay footballé boo ko xoolee sax da nga koy gis ci moom moom Iliman Ndiaye kon yow Aliou Cissé jot na nga dem su ci xale bi nga waxtaanal xale bi nga mun koo convoqué mu ñëw footballal équipe nationale bu Sénégal am na lu muy apporter équipe. équipe nationale pour Sénégal mom il Ndiaye mom lañ leen indiloon tay mu nek jeune joueur bu ay bu mun football bu am technique mom lañ indi tay euh, ci euh, bi nation ñu nek ci euh, Europe bi mom Iliman Ndiaye amna talent kon il faut Aliou Cissé yow nga dem gëstu ci xale bi mun ko convoqué mu ñu football équipe nationale bu Sénégal man daal seeni Alamouty Sport ba yeneen vidéo kontaan bu baax samay abonné continuer di abonné di def commentaire ba pare di aimer loolu day permettre seen bi gën a am doole mais aussi day permettre ñu mun a gën a mun a dugal ay vidéo kontaan seen bu baax